dañu gis démb aussi euh, ci prestation bi euh, mu am ay figures yu manqué ci prestation bi ku mel ni Khalifa Sall gisuñ ko fa Barthélémy Diaz euh, gisuñ ko aussi ci ci mbir mi tey ñu nekkoon ay compagnons de Ousmane Sonko de Bassirou dans yeewu yeewu askan wi ban jàngat nga am ci loolu aussi. ah bon xam nga prestation de serment d'habitude kan mooy celui qui invite. Mhm. du Bassirou mooy invité. c'est le conseil constitutionnel. mooy invité moo moo yore les cartes d'invitation hmm. moo moo koy jox ku ko ne peut-être mën na jëw ne Basirou yow yaay président carte yi mën naa la ko jox nga jox ko mbokk jox ko xarit et tout ça mais le maître d'œuvre de la cérémonie c'est le conseil constitutionnel donc conseil moo xam kan lay jox léegi nag il se trouve que comme ni nga wax noonu am na bon des nga xam ne gisuma leen fa ñu nekkoon dans l'opposition ak ñoom Ousmane Sonko comme tu l'as dit Khalifa Sall ñoom Barthélémy Dias et tout ça mhm. peut-être ñoom ils ont reçu leur euh, invitation parce que l'élégance nekkoon ñëpp. oui liste na leen convoqué. jox leen invitation. naturellement bon euh, Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar. tant que maire de Dakar waxuma sax en tant que directeur de cabinet wu Khalifa Sall en tant que candidat Khalifa mais en tant que maire de Dakar certainement waroon nañ ko jox. Hmm. maintenant s'il estime que bon euh, bon xam nga. diggante waa Pastef ak waa Khalifa ñaxtu woon noonu hmm. peut-être que j'en estimais que bon qu'est-ce qu'ils n'ont rien cette cérémonie là parce qu'ils étaient devenus des adversaires quoi donc man. Euh, hmm. loolu rek laa mën a gis comme mais cérémonie boobu bu ñu demee gis waa APR. mais ñu ci bari teewoon nañu. ñu yoroon ay portefeuille bokk ci euh, APR gis nañ leen foofu. waaw bien sûr doon na gën a rafet ñu gis. Euh, en tant que maire de Dakar Barthélémy Dias toog Khalifa Sall toog ñu wane ne politique la woon dem nañu askan wi tànn na bon dañu ànd ak ñi liggéey. mais seen seen absence aussi euh, lu ñu mën a wax absence su Khalifa Sall ak Barthélemy Dias ci ci kii bi xaw na euh, dutaloo ñenn ñi ci ci relation yenn relation yi aussi. bon de toute façon ñu ñu ñu absent wala ñu présent tamit ça ne changerait en rien le, la cérémonie ah. absolument cérémonie bi bon ñoom ñu teew wala ñu bañ a teew bon les choses allaient continuer. Mm -hmm. maintenant ils ont leur argument xaw ma lu tax véritablement teewuñu cérémonie bi. mais euh, dama jàpp que ne rek peut-être que ils se sont dit que ils n'ont ils n'ont pas leur place là-bas parce que voilà ku ne xam nga seen diggante entre ñaari entité yooyu bu ñu demee ba am na ay meeting yoo xam ne bu waa Barthélemy waa waa waa comment ça s'appelle encore là waa Khalifa Sall bi ñu fa ñëwee waa Pastef di leen yuuxu et vice versa mm-hmm. ils se disent que bon voilà euh, cette cérémonie là duñ fa dem. mais est-ce que c'est pas le moment aussi de taire ces hmm. Hmm, querelles là. parce que interprétation yi bëri na foofu. ci c'est des querelles euh, politiques. Mhm. certainement il arrivera un moment boo xam ne ils vont dépasser ce stade là. Mhm. parce qu'ils ont été des partenaires politiques. récemment daa yeewi askan wi askan wi donc euh, voilà peut-être euh, politique noonu lay demee des hmm. circonstances les les amitiés en politique les amitiés d'aujourd'hui ne sont pas forcément euh, celles qui vont naître demain demain voilà donc euh, mën nañ nekk xarit tey demain nekk des adversaires ou même des adversaires irréductibles mënoon nañ nekk ay adversaires irréductibles tey demain on devient de grands amis ok politique noonu lay demee. Mhm. xam ne ñu ngi ñu ñu rappelé euh, euh, mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ak euh, internautes yi aussi ñu ngi xaar guvernement bu yees bi. Mhm. parce que démb boo déggee ci cadre Ousmane Sonko li mu wax mooy nañ ko jébbal président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu validé ñu soog a def def def def def communiqué bi. ben naturellement aujourd'hui yaakaar naa tey il va il va nommer un nouveau gouvernement comme suba le 4 avril 4 avril. normalement bu naree am prise d'armes mhm. peut-être il aurait souhaité nekk ak un nouveau gouvernement donc je me dis que peut-être que tey il va nommer le gouvernement ok euh, mais euh, nombre de nombre de ministres yi ñu war a xaar aussi parce que euh, loolu dafa nekkoon lu ñu ñu doon kaas naan pléthore bi am ci ministères yi ministre bon est-ce que ñu ñaa ngi vingt cinq ministres doy na ñi ku nekk di joxe chiffre mais ñaata ministre ñoo war a mën a doy pour pour pour pour ce gouvernement non xam nga parce que boo nee rupture aussi xam xam nga le le nombre de ministres. sa -hmm. ça dépend parfois de de la nomenclature bi nga xam ne moom lañ teg. Mhm. xam nga boo fekkee ne da nga bëgg a tas ministère yi. comme xam nga amoon na jamono yoo xam ne par exemple on disait ministère de la jeunesse des sports. des sports. Mhm. loolu xam nga appellation boobu daawoon am su Abdou Diouf. absolument mais bu fekkee ne da nga bëgg a jël sport nga teg ko fële jël jeunesse nga teg ko fële. et nga def noonu dans plusieurs ministères forcément tu auras beaucoup de. beaucoup de ministères absolument. mais boo jàppee boo jàppee ne yow da war a regrouper certains ministères yoo xam ne war nañu mën a dem mais tu peux t'arranger pour avoir au moins une euh, vingt cinq ministres. Mm -hmm. bon de toute façon euh, yaakaar naa le président Diomaye fay démb le, le président du conseil constitutionnel mu ngi koy rappeler d'ailleurs. Mm que moom élection bi rek son élection à la tête de l'État war na ko woon nekk les sénégalais portent beaucoup d' espoir. d' surtout boo gisee résultat résultat élection yi élection présidentielle bi c' est une élection inédite. ah oui mosoo gis ay résultats yu mel ni élection bii. Mm-hmm, absolument. mosoo gis loolu. ay can au premier tour la candidat il gagne. Mm-hmm. yeneen candidat yëpp kenn amu ci 4 pour cent ah, absolument à part le à part le à part pur mi dem de de de à il <laughs> y a, il y a quelque chose. C'est-à-dire que les Sénégalais, il n'avait, c'était pas, c'était même pas une élection classique, quoi. Mhm. C'était un référendum. Un référendum, absolument. à choisir entre la continuité et la rupture. Et la rupture. La continuité, moi, là, mooy voter pour Amadouba. Amadouba, moi, euh, continuité, moi, Maki. Amadou, moi, Maki, Maki, mhm. moi, Amadou. Ou bien tu choisis la rupture, tu votes pour la rupture. Manam, yo, pendant les 12 ans, là, nous, 12 ans, Ngourou Macky Sall. dama bëgg loolu dañ bëggatuma loolu am Sénégal nga ne ah dans ce cas je vote pour la la rupture je vote pour Bassirou Diomaye donc ça s'est passé comme ça et ce qui explique que nga gis des candidats yoo xam ne c'est mënoon moo tu te demandes même est-ce que lii mooy seen poids électoral ah, ah, dëgg dëgg parce que boo gisee le résultat de Khalifa Sall ay ñoom euh, hmm. Aliou Dia du PUR et cetera tous les autres candidats hmm. qui ne sont pas arrivés à avoir nga xam ne a quelque chose. Mhm. nga xam ne lii c' était pas une élection c' était un référendum. référendum. référendum oui ou non. Ah donc il y' a que deux deux deux deux, deux trucs deux options. Mhm. et c' exactement le, comportement de l' électeur ça c' est euh, en fait euh, euh, dañ ko gis. si mhm. résultat élection bi. mais mais donc loolu yëpp nag ça montre que. Mm -hmm. les Sénégalais ils ont voté pour Diomaye parce qu'ils voulaient. le changement mmh. changement la passe par la rupture rupture boobu mooy lan mooy taxaw si euh, les besoins des Sénégalais. Mhm. La jeunesse, l'agriculture, la pêche, euh, le, le, de la vie si boppam. Mmh. mais il y a tellement d'attentes les mhm. attentes sont très matin ce matin maa ngi déglu Ab Abdou Mbow mhm. euh, ci benn euh, rajo de la place muy wax ci ci palu bi ñu bi ñu fal kii non bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu fal non pas Ba Euh, Mary Teuw Niane mm-hmm. mu ciy wax euh, naan ñoom dañu waxoon dañu ñëw indi lu bees ñu ngi ñëw jël ma ma Mary Teuw Niane def ko <laughs> def ko secrétaire non mooy ñooñu xam nga déjà déjà guerre guerre yaa ngi yaa ngi tàmbali ça ça ce n'est pas ça ce important mm-hmm. ce n'est pas important encore une fois s'ils estiment que si Bassirou estime que euh, Mary Teuw mën na jàppale si liggéey bi mu bëgg pour yóbbu réew mi si kanam. Mhm. mais rien ne l'empêche de prendre Mary Teuw Niane ou bien ne l'empêche de, de de prendre un, un citoyen sénégalais. ok voilà donc maintenant euh, il y a des choses bi nga xam ne euh, ñoom opposition bi la nouvelle opposition dañ si war a bàyyi xel. Mhm. c'est-à-dire que euh, gis naa tey sax benn waay bu commencé di bind dans les réseaux sociaux. Diomaye liggéeyul parce que passeport bi jàll na de de de vingt mille à quarante mille. léegi koy changé. Mhm. mais Diomaye mi door a falu dem lan la ñu war a def nag si passeport bi yokk tey tey. Mhm. ko si ah passé c' moom sax yëgul woon ne passeport yokk na tey à quarante mille. Mhm. ku ñuy door a fal sax eh, kii kay loolu moom si yoon nekku si. non man kay il faut pas se tromper. Diomaye ne va pas régler les problèmes euh, du Sénégal. ah oui surtout il faut il faut préciser maanaam doo xëy rek en en trois mois wala en en deux semaines. Mhm. nga ne voilà lépp naaj na. mais ci lan ci lan lu ñu war a njëkkee parce que aussi sénégalais yi espoir bi dafa dafa dafa kawe. Mhm. l' espoir bi sénégalais yi porté. Mhm. ci ndodd projet bi mais ci ndodd président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci ci yan secteur la ñu war a njëkk a njëkk a njëkk a def. Euh, Euh, seen seen seen. Ah, loolu loolu il va il apprécier mais les les, les secteurs yi nga xam ne ñoo soxla ñoo ñoo ñoo nekk urgence tey xam naa doo si la jeunesse. Mm-hmm. parce que la jeunesse ça je crois que war na nekk un grand chantier pour le président de la république. Mm-hmm. xam que ne war na. bu ñu nee jeunesse rek emploi mm-hmm. xam na problème mu sénégalais xam na problème de la jeunesse sénégalaise. et gis na il est il a été élu moment nga xam ne la jeunesse sénégalaise a perdu espoir. nga gis que jeunesse bi di dem ay chaque presque chaque mois nga dégg ne y' a un une pirogue bu jógee Sénégal <laughs> di dem. wutali euh, Espagne. Mm-hmm. mais loolu euh, on est arrivé à une situation boo xam ne Sénégal beaucoup de jeunes sénégalais gëmatuñu ki peuvent réussir au Sénégal. Absolument. donc il va falloir peut-être poser ay actes yoo xam ne ça va redonner espoir à cette jeunesse la parce que jeunesse bi mën a gën que ne mën nga dund Sénégal réussir au Sénégal. Mm-hmm. ça je que c'est un truc très important la même façon aussi. moom il est issu d'un milieu euh, défavorisé euh, dans le monde rural xam na lu fa nekk mhm. <laughs> ma ne ku ku juddoo njagañaaw mënoo ne xamoo les réalités du monde rural mhm, absolument ah li béykat yi di dund loolu moom boo kenn du ko jàngal il le sait mieux que tout le monde donc euh, un secteur boo xam ne secteur bi bi soxla ñu renforcer ko la sa teewlu soxla nga euh, mm-hmm. une ah, mais mais mais mais Georges il en est de pour le secteur de la pêche. Mm-hmm. le secteur de la pêche mais surtout agriculture bi nga wax. un pays qui ne parvient pas à avoir une souveraineté alimentaire. Mm-hmm. mais est réduit à l' économique man dama jàpp na tey jii bokk na ci li ñu war a parce que tey jii crise bu amoon ci àdduna. ku nekk tëj sa frontière Sénégal lu muy dundee. Hmm. parce que presque li ñu dundee yëpp dañ koy dañ koy jiggaane kon comme ni nga ko secteur u bi secteur la boo xamante ne bu ñu war a bu ñu war a taxaw la mais euh, Georges dama gis point boo xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy boobu léegi hmm. mooy cherté de la vie hmm. jafe-jafe yi sénégalais yi am ci dundu gu cher waaw looloo tax ma la rek bon le coût de la vie loolu bokk na si loo xam ne bon peut-être ah, c'est un autre chantier bi xam ne président Sénégal yëpp ñu mm-hmm. mu nekk nii coûte extrêmement cher. donc euh, voilà tey euh, loolu xaw ma nag ban politique lay jël ça je crois que bu si waxtaanee avec son premier ministre war nañ am jéego yoo xam ne mën nañ ko teg. Mhm. si loxo sénégalais bi sénégalais sentir ne au moins dans je ne je ne dirais pas en cent jours hein, comme mhm. gars ni ñu koy wax. xam nga en 100 jours am na loo xam ne encore une fois kenn mënu ko tey mënoo xëy par exemple en moins de 100 en moins de mois nga wàññi les prix des les les prix des denrées de première nécessité ah comme ça à partir d'une baguette magique. Mhm. loolu bon je pense pas que nit war na ko mën. Mhm. mais il va il veut maintenant essayer. Mhm. mais je ne dis euh, vraiment essayer parce que sénégalais yi moom. Euh, gis nga gis nga Georges je dis que sénégalais c'est un pacifique mais peuple la boo xamante ne bu ñu amee lu ñu dundee ah. seen dund euh, xaw xaw a jàppandal tuuti ñu ngi ñoŋal seen dund ñu mën a lekk ba suur naan ba màndi hmm. mais euh, la sénégalais en partie bu amee loolu rek yaakaar naa ne looy dafa dañ naan non nañ ko bàyyi mu liggéey mais quanta bu bu ñëwee ñu gis tey fi gouvernement président Macky euh, Ablaye Wade bàyyi woon dund gi président Macky bi mu ñëwee dund gi dafa gën a metti gën a cher hmm. sénégalais yi di ko yuuxu fu nekk loyer kenn waxatu ko location aussi euh, li ñu voté pour yi ñu à l'Assemblée nationale mujjul fenn mi ngi ci tiroir yi amul amul amul benn sens kon jàpp naa ne tey loolu bokk na ci secteur yi nga xamante ne ne euh, bu ñu bëggee sénégalais au moins euh, mën mën a mën a mën a noyyi euh, benn respirer un peu mooy alléger aussi le vécu des sénégalais ci ci les denrées de première nécessité. waaw waaw loolu loolu moo tax mu ne la ça c'est un autre chantier chantier boo xam ne bon c'est c'est c'est une urgence. Mmh, parce que comme ni ñu ko waxee sénégalais boo leen régler les problèmes boobu régler leen le problème boobu le problème du loyer sax loolu beneen affaire la. man mmh. naka jëkk même su Macky Sall dem leen waxoon ne man cette histoire de baisse du. du loyer du loyer. ay ay ay ay dóor la rek mais mënul dem parce que c'est un secteur assez compliqué. compliqué <laughs> c'est pas. l'état l'état l'état n'a pas construit construit ay immeuble jox leen jox leen les sénégalais ñuy ñuy loué. Mhm. bu fekkoon ne noonu la mën na mën na baisse prix loyer mais fii c'est des privés ñoo tabax seen kër. Mhm. bu ñuy tabax seen kër joxe leen saako ciment joxoo leen. Euh, fer fer. Mhm. kooku mënoo ko obligé mun ngay ko temps ngay loué sa kër. Hmm, mais a une exagération quand même ah. a une exagération ah, mais xam nga. ay mais Dakar Dakar mais Dakar chambre salle de bain cent mille parce que c'est un secteur désorganisé. tu fais deux ans nga récupérer li nga li nga mm-hmm. après sénégalais yi amul kër. Hmm? yi ñu am fu ñu dëkk. Mm-hmm. genre tu sais dama lay c'est parce que c'est parce que l'État n'est pas allé jusqu'au bout de sa politique avec les logements sociaux. Mm-hmm. bu fekkoon ne dañu wax ne logements sociaux yooyu dañ dañ koy def nañ si lu ñu war def yëpp. kon ça peut réduire le le du loyer. mais okay. tant que tant que état le rôle de l' état aujourd'hui ay SICAP ay SNHLM ñi nga xam ne loolu première mission c' était de tabac pour les Sénégalais. Mm -hmm. le le le loyer n'était le loyer n'était pas aussi cher dans les ah, années 80 si, jusque dans les années 90 le le la SNHLM nga xam ne loolu rôle am la woon. Mm-hmm. Euh, la SICAP également loolu rôle am la woon di doon tabax pour les Sénégalais. mais ces ces ces ces deux trucs là gisatu leen sax. lu ñu tabax le foncier aussi ñu ngi xaar jomaay ci yenn teer yi parce que euh, dafa accaparement de terres par certains euh, euh, des hommes benn portion nit loolu aussi war nañ ko xoolaat parce que yu terres yooyu dañ ko war a nanguwaat. xoolal leen littoral bu géej waay bi. littoral bu géejewaay bi ay tour nga fay dégg benn nit ñu jox ko ñaar fukki terrain euh, spoliation euh, suuf si ci àll bi à côté jas ay yenn dëkk yi ngay gis mais baadoole bi amul terrain amul fu mu dëkk yooyu je pense que c'est des questions prioritaires aussi. Euh, mais euh, Dieu merci. voilà euh, Diomaye c'est un inspecteur des impôts et domaines domaine <laughs> donc boo waxee boo waxee boo waxee foncier rek. foncier ah, ah, ah donc là également c'est quelqu'un boo xam ne kenn gënu ko xam. suuf li nekk ci problème au niveau du foncier. Mm-hmm. parce qu'il a eu intervenir dans un problème foncier. a Ndiaganiao avec l'affaire Ndengler. Ndengler donc je sais que. personne n'est mieux renseigné que lui par rapport à cette spoliation foncière ak les problèmes euh, que rencontrent les Sénégalais. ok mais attentes yi daal diis na trop ah. ma ñëw ci imam ci attentes yi parce que euh, yaakaar naa ne yéen bi diis na trop dañuy ñaan mu woyof mm-hmm. c'est le président de tous les Sénégalais liñ koy ñaanal.